Cheikh Bara Ndiaye yëkkati ay kàddu jëme ko ci ki nga xamante ne si moo di kii di capitaine Touré ginnaaw nomination bi nga xamante ne si defal nañu ko ko moom mi nga xamante ne si kon moo di Cheikh Bara Ndiaye yëkkati ay kàddu kon di uh, témoin ki nga xamante ne si moo di kii di uh, Seydina Omar uh, ture ñoo gën koo xam ci capitaine Touré moom nag kon di Cheikh Bara kàddu ya daal bokk na ci kon jamono yi nga xamante ne si kon événement mars kon kon 2021 yi amoon na kon fii ci réewum Sénégal taxawaay ba nga xamante ne si kii di capitaine Touré amoon euh, na ko ca waaye nag li nga xamante ne si kon daal euh, moo di euh, tolof tolof yi mu dund ci ginnaaw événement yooyee lépp nag kon Cheikh Bara kon ñëw ci li nga xamante ne si daal moo di benn par benn ndax kat kii di kon Cheikh Bara Ndiaye jàpp nañ ne daal nomination bi nga xamante ne si kon defal nañu ko kii di capitaine Touré moom nag kon yeyoo na ko ndax kat dafa servir li nga xamante ne si moo di réewam waaye nag kon jiitalul li nga xamante ne si moo di alal wala loo xamante ne si kon bëgg-bëggub ki nga xamante ne si kon moo ko jiite woon ci jamono yooyu la woon waaye nag moom bi di capitaine Touré daal li nga xamante ne si kon moo di def li mu def kon moo di kon jëfi koo xamante ne si kon daal jàpp nañu daal li nga xamante moo di waru garam def na ko bu mat sëkk ci li nga xamante ne si moo di mbir moomee nga xamante ne si kon daal defoon nañ ko ko ci ay sanctions yoo xamante ne kon tegoot nañu ko ko Euh, moom mi di euh, capitaine euh, Touré waaye nag Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ne si kon daal wax na ni kii di capitaine Touré sax campagne bi kii di kii di kon di président Bassirou jomaa jaxaar Faye moom la àndaloon maanaam kon doon ko jàppale ci li nga xamante ne si moo di ci campagne bi waaye nag moom xoolul woon kon benn nomination boo xamante ne si kon daal war nañ ko ko mën a defal fii ci réew mi ndaaye nag kon moom mi di Cheikh Bara Ndiaye kon nee na daal euh, moom mi di jàpp nañu ne daal ñii di euh, waa pouvoir jamono ji ñu ko sax borom donte sax kon nommé nañu ko euh, fi nga xamante ne si kon daal moo di ci place boobee ñu ko teg waaye nag jàpp na daal li nga xamante ne kon moo di capitaine Touré daal li mu ko defal da ko yeyoo moom mi nga xamante ne si moo di capitaine Touré waaye nag li nga xamante ne si tamit moo ci amaat ba tey xamante ni si kon eh, kii di Cheikh Bara Ndiaye wax na kon jëmee ko ci kii di Adji Sarr li nga xamante mi moom mi na si kon eh, eh, ko bàyyi kon mu niil noonee ak na ko ba tax na si kon moo di Adji Sarr ak képp koo xamante ne si kon doon na ko jàppal li nga xamante ne moo di tànk ci réew mi rek na jàpp ne kon kon daal euh, yoon dana daal seen euh, kaw benn euh, par benn ba tax na daal nee na kon amul lenn loo xamante ne si des na ko ca bale di kàddu yi kon ki nga xamante ne si moo di kii di Cheikh Bara Ndiaye waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi kon ki nga xamante ne si moo di capitaine Touré moom nag kon yëkkati ay kàddu kon jëmee ko ci peuple sénégalais bi ñëpp nee na kat nag mi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi waaye nag kan di jaajëfal timit ñi nga xamante ne si ñoo ànd ak moom ci combat bi di ko jàppale di xeex ak moom waaye nag ndax moom jàpp ne daal li nga xamante ne si moom la def kon defalu ko boppam waaye nag peuple sénégalais bi lépp lu ko defal ndax kat loolu rek moo nekkoon li nga xamante ne si moo di liggéeyam bi nga xamante ne si kon Ah, doon na ko représenté fii ci réewum Sénégal ci jamono yi nga xamante ne si kon événement yooyu am na ndax kat moom nee na ah, li nga xamante ne si kon moo xewoon ci jamono jooje loolu rek la bañ moo tax kon mu jëloon li nga xamante ne si kon ah, moo di ay propre responsabilité am kon génn wax na daal mbir mi kon dara amu ca moom mi nga xamante ne si moo di capitaine Touré waaye nag kon mel ne dañu ko mujjee jaay doole nag kan jëlee ko fa nga xamante ne si kon fa la nekk ak fépp foo xamante ne si kon demoon na fa ngir dagaan ngir liggéey foofee nag kon daal lépp ñu jëlee ko fa ba ci sax maire bi nga xamante ne si kon demoon na fa muy mairie di seen i ay compte ndax kat dem nga xamante ne si kon ñoo di taskatu xibaar yi fi euh, euh, euh, nag ci ay kàddoom yoo xamante ne si moom mi di capitaine Touré daal yëkkati na ko ndax kat jàpp daal moom sax séntu woon li nga xamante ne si kon moo di nomination bi nga xamante ne si defal nañ ko ko ko waaye nag dafa jàpp ne moom daal servir réewam moo taxoon kon mu sol li nga xamante ne si moo di euh, tenue militaire am euh, ba tax nag mu doon kon li nga xamante ne si moo di capitaine ne nag ci moo di métier mi lépp rek kon mu def ko li nga xamante si kon moo di euh, yoon woo li nga xamante ne si kon moo di wàllum kon yoon ci li nga xamante si kon daal ci la doon yëngatu moom mi nga xamante ne si kon moo di capitaine Touré jaajëfal nañu leen yéen nga xamante aussi yéen ñu topp suñu site bi di Buzz SN ni koy faral di waxee bu na fàttee abonné te partagé tey aimé vidéo yi dana yokk doole page bi waaye dana tax lépp loo xamante ne si am na ci réew mi ak bitim rek ngeen mën cee jot